Djibril Diop maa ngi lay nuyu voilà Djibril Diop euh, nga bokk ci euh, coalition Yewwi Sénégal nekk euh, président parti Front pour la République du Sénégal ah, déjà ma lay laaj naka nga gisee li ñuy laam-laame éclatement wu coalition Yewwi Askan Wi te yow sax bokkoon nga si ñi nga xam ne ñoo ko fondé initié woon bokk ci membre fondateur créé li naan Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi nag suñ koy créé dañu kon benn groupe boo tënku waxtaan ba juboo ak benn charte bu naan euh, charte bii kat mooy suñu constitution pour ñu mën ko doxalee Yewwi Askan Wi waaye bi ñu demee ba ci biir ñu gis ni euh, ñeent wala ñaar décision bu ñëwee bëgg ko forcer nit ñi muy dem a dem a dem chaque fois jox ay kaas di ko wax mu dem nag ba indi ay tension yu méttee méttee métti biir Yewwi Askan Wi ñun nag ñu jóg jël suñu dénoncé ko au de la presse ko wax seen comportement ak seen doxalin rawatina nag li ci élection yi passé mooy ñu di nit ne ko boo defee ba pare nga concerté nit ñi mu ne dinaa wax ak ñëpp mu wëlbatiku waxu la kenn déposé liste bi séddoo ko muy Khalifa Ababacar muy Ousmane Sonko ak pu ñun question même déposé ba noonu di ko fi waxee li ñu demee nag ba toog noonu ñuy dégg ci presse ñenn ñi nag bi ñoo ko waxoon boo defee ba pare de déposé te loo xam ne du dëgg ndax man fekkee naa bi ñuy waxtaan ba garaw MRDS bu mu jógee def na ko boo defee na ko indi mu ne dinaa balaa maa defar sax dinaa concerté ñëpp hmm. ñaareel bi mu naka te moom ki mu concerté moom ak Ousmane Sonko ñoo toog dem defar tey loolu li ñu doon wax nit ñuy wax du dëgg di firndeelu ci assemblée nationale ni député yi demee da gis député yi fa nekk député taxawu la député pur ak député Pastef léegi nag nit bu ànd ak moom ngeen ne da ngeen war a ànd dem fu sori yow nga yéene ko te yéenewu dangay jël sa responsabilité teel a génn ba sa génn neexee won ko ni ñoo àndoon kat waaye gis ne ni ànd ànd ki mu ne mu gën li fi nekk nekk mooy mbiccoo ak mbaaloo ak séddoo ak def lu la neex ak di koy accuser Macky Sall ñu dem ba gis ko ñoom méthode yi gën a bon yooyu ñoom ñu koy def ñun nag man ak ñenn ñi ñoo xam ne ñu toog nag mais war nañoo nag nañ génn dem taxawal suñu suñu coalition bopp tuddee ko Yewwi Sénégal muy yees moom lañ ko lan teg commencé di liggéey commencé nag war a commencé nag ay tournée pour gën a gën a jëmmal ak ak tamit taxawal coalition bi pour jëm hmm. tey jii naka nga gisee rapprochement bi am ci diggante xalifa Sall ak euh, président Macky Sall coow li bari na de naka nga gisee mbir mi. waaw ñun man de musuma bett parce que man yàgg naa wax moom ak dans tous les temps à dans tous les temps yàgg naa wax ak Macky Sall dafa am lu ko lonk li ko lonk la war a dindi parce que wax na ko sax nee na moom tous les moyens sont bons na nekk candidat rek. kon donc sañ na lu nekk waaye nag booy ànd ak ñu mel noonu te xam leen ñun teel a jël suñu responsabilité si ñoom si moom ak si Sonko parce que li waxoon rek moo si leen booy ànd génne leen nga ànd ñu coo wax si ñoom li ñu waxoon moo dafay ànd ak ñun rek waaye boppam dong ko tax a jóg sañ na lu nekk kon démb bu la mooy li ñu wax xam na ñun yàgg nañ danañ si biir nag kii ñu wax ak waaj te ñun nag bugg ànd ak koo xam ne daf ñuy jaay léegi nag démb comme loolu dafa firndéelu nit ñi nag ñoo jugé parce que moom wax na ko quelque part à la Guèye ko moom na nekk candidat rek. Sénégal sincérité amul mooy d'abord mun nga xalaat nit mu def la lépp waaye sa équipe personnel dina la jaral nga jaay ñeneen comme ñun nag dañ ñoo jaayoon sa élection législative yi jaay ci locale kon nag balaa ñoo jaay présidentielle ba. suñu yéen Sénégal dem si ñoom seen i wax ak seen i jëf yëpp ñu sànni leen fële teg leen fële xam ne Sénégalais ñun lañ doon wax dañu doon accusé i booy ñu ñuy saag di wax la ñuy liggéeyal tey firndeel ni ñan lañ gis nekk Macky Sall mooy abdou si bañ jox si conférence ak tamit Khalifa Sall man joxoon si plus mu coow mbaalo tey jii ñu leen gis ñu taxaw Macky Sall di wax ka rek kan mooy wan ni que politique yi dana yàgg yàgg yàgg def ginnaaw population moo tax ñun nag ñu jël nag ne méthode politique yu bon yooyu ak yenn yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy def nit ñi di nax nit ñi di leen sox nit ñi teel a jóg taxasu ne dinañ teg loo xam ne mën a waxtaan ak Sénégalais wax jëm mu yoon bi nekkoon yoon bi bu nekku Sénégal leen ak takk loolu tax nag ay waxu Xalifa ak ay waxu ñu ñun dañoo lem yëpp taxañ sànni fële fas yéene jëm ci lu bees. Euh, tey jii pour yow euh, ban taxawaay la Sonko war a am exactement comme que Yewwi Askan Wi gis nañ ni ñu bari dem nañ xalifa su demee lan moo war a nekk posture Sonko ak Yewwi Askan Wi. dama ne xam nga dama ne moom lu mu góobee na ko gar. Mhm. ndax ñun dañuy jël suñu ba ñuy wax di ko wax li ñu def du dëgg du yoon nan leen toog ñu wax ñoom ñoo ko génn ak ñu si presse ba ay waa suñu njiit ñi Macky Sall yi nii au contraire que ñun dañ ko teeloon a avertir dañ teeloon a avertir opinion nationale et internationale ne moom de moom ñun ñu taxé lu nekk duñu waxal lu nekk seen biir ñoom ñi séddoo bis dina ñëw seen biir dina éclaté wu parce que ay jil yooyu ñuy jiiñ nit ñi moo nekk ci ñoom démb nag firndeel na ko kon Sonko lu mu góobee ko gar parce que moo fi nekkoon ko rek mu attaque ko biir yee rek mu génn attaque tey nag moom ñu mu àndaloon tan tekki dara résultat ba commencé génn léegi nag résultat boobu moom moo ko góose woon moom Ousmane Sonko na ko gar moom moo ko góose woon na ko wanaasu parce que moom ñi mu àndal certes xam ne ni duñ ay àndandoom yoo xam àndandoo yoo xam ne ànd bu sincère la yoo xam ne àndu tay la rek pour am ay résultat waaye bu ñu demee ba seet bi jot moom dañuy jël rek sànni fee tey nag gis tël na ko góose moo ko liggéeyoon parce que ku nekk nga ku nekk nga menacé ku nekk nga accusé dem ba benn moment nag accusation yooyu mu doon def ak ñooñu mu doon indee yàlla nag atte kook ñoom tey nag résultat bi moo mujj mel nii léegi résultat boobu nag dem na ba àgg fi ah na ko góobee. léegi euh, naka nga gisee dialogue bi njiitu réew mi di woote Macky Sall ban jàngat nga si am. waaw ñun dañu toogoon waxtaan suñu biir au sein de de la coalition Yewwi Sénégal waxtaan ne réew mi de fi mu jëm nii de bu ñu xoolee ne baaxul. si au sein de Yewwi Sénégal xam ne ay acteurs lañ yoo xam ne ñoo àndoon rawatina nag man ñu di wax ak yow bokkoon ci li naan commission politique di dialogue national waxtaan ci li naan fichier électoral waxtaan ci ni ñu koy auditer ak ni ñu koy évaluer ak yenn question yi liñ ci waxtaanee mu am question yu bari woon lool mu am yu ñu déggoo ak yu ñu déggoo ak yeneen yoo xam ne dañ ko defoon ci bi yu ñu déggoo nag mu am ci yoo xam ne kenn laalagu ko pour ñu mën ko méngale mën ko dugal ci code bi mën ko changer am yeneen yoo xam ne nag dafa desoon ci waxtaan bi nag ñu ne comme réew mi jëm na fii te am na ay gàllankoor yoo xam ne mun na am laaj na nag ay fi réew ñu toogaat waxtaan ci autour autour d'une table pour mën a xool nan lañ mën a méngalee ba Sénégal li ko gis muy jàmm rek ñu toog ci woowee ne il faut une concertation national pour acteurs yëpp xëy na peut-être que reew réew mën na déggee foofu wala mu gisee foofu wala tamit xel nekk na si moo tax mu woote ñun nag ñu ne dialogue boobu bu ko wootee dañ koy rappeler ay principe mooy yenn yoo xam ne dañ cee waxtaane woon te mu war koo méngale mën ko si dugal te dugal ko si mu dugal ko si dialogue bi nag war a nekk war nekk nag ñuy xaar ñun suñu biir ne duñ waaw rek wala duñ ne déet rek waaye tamit booy woote dialogue tamit dafa laaj nga génne ay termes de référence termes envoyé ko ak ñu xool moo tax ñu teel di wax naan demu ñoo dañuy dem ak yooyu c'est-à-dire que dañoo teel a wëri te gis nga àdduna boo si nekkee balaa ngaa jël décision xaaral kay ci la wax ne la damaa bëgg ñu waxtaan nga ne ko nag li ñuy waxtaanee lan la bu la joxee ne léeg-léeg li si point yooyu mais parfois manque de maturité dafay dal classe politique bi ñenn ñi di wax ci def yëpp nous sommes pour le dialogue mais nous sommes pour des termes de référence yoo xam ne dafay méngoo ak li am. moo waral nag ñun ñu ne dañ doon rejeté offre parce que tamit politique table vide baaxul bis bis boo chaise vide baaxul bis boo ko defee rek ci ko daloon na PDS si dialogue bële mu dem ba benn moment ñu audité ak ñu évalué mu bind na lay bokk gars yi ne ko yow yaa waxoon doo bokk kon doo bokk ma gis ni nag dialogue bi du benn dialogue rek dafa am yenn yoo xam ne acteurs politiques yoo xam ne ñu ngi koy wax ni ñoom ñëpp naan dem demuñu mais dinañ toogaat ba yàgg ñu dem parce que ñaar lay doon dafa am dialogue boo xam ne ci processus électoral boo xam ne ministère en charge des élections mën na ko organiser ci jour yi yam parce que war nañoo wax ci calendrier électoral nga xam ne publié ne ko nan la ñuy waxtaanee si caution bi loolu tamit ci dialogue la bokk nan la ñuy waxtaanee ci par parrainage bi nan lay mel fiche bi nan lay mel ak tamit calendrier bi ñi ñuy réclamer fichier électoral ak yooyu yëpp nañ ko waxtaan te loolu dialogue la moo tax mu ne leen teel a wax ak beneen dialogue boo xam ne ci tension bii am réew mi am nan lañ ci mën a waxtaanee pour méngale ko jamono pour mën a jëlee foofu ay résultats pour mën ko yóbbu assemblée wala yóbbu ko foofu moo tax ma ne ñaari na dialogue moo am rejeté tout moom erreur weesu ko ak tamit manque d'expérience weesu ko. Djibril kon maa ngi lay remercier bu baax a baax ci nangoo tontu bi nga nangoo tontu samay laaj. jërëjëf voilà nga nekk président bu parti Front pour la République du Sénégal bokk ci coalition Yewwi Sénégal merci beaucoup Djibril Diop.